tamit uh, ci kuréel bi nga xam ne moo ëmb Mamadou Lamine Diallo ak Thierno Alassane Sall ah congrès pour la renaissance démocratique loolu lépp euh, mu ngi ci kuréel yooyu chaque jour dama lay nga ne le Sénégal est sous ajustement structurel boo ko waxee ñeneen ñi bu lay tontu ñoom bon bu la tontu économiquement dañuy wax ne dafa soxor parce que da nga lu mu déggee moo tax ba léegi dafa mer mu fan nga teg na Sénégal est sous ajustement structurel mais ci li ñu bind noonu. ci ñu wax ñoom dugg na rek man si Sénégal ak sama dafa am loo xam ne dañ ko wax ñu wax ko Fonds monétaire international am na ci ñoom te loolu bu amee ajustement structurel lañ ko tuddee muy lan muy benn nga ne état maanaam demande dafa war a wàññi ñu ñuy jaay seen dépense te te demande publique dafa war a wàññeeku ndax lan ndax suñu jaay ëpp na li dugg. kon dañ ko dañu war a wàññi li ñuy jaay yokk li ciy dugg. est-ce que le budget sincère man loolu beneen wax la waaye nañu yem rek ci li ñu mel ni ñoom.

ñenn ñi leen foog ñu wàññi ko ñu dem kon boo ko wàññee li ñu doon li nekkoon yokkati ci koom day wàññeeku ñu jàpp loolu ñu ne itam demande privée maanaam lu dul état ak entreprise askan wi li ñuy jënd dafa war a wàññeeku ndax am na foo xam ne Euh, Sénégal daf ci war a génn muy li ñuy oote les paiements extérieurs courants li ñuy doxal sama diggante bitim réew. kon jàpp nañu war a wàññi déficit budgétaire. war a wàññi euh, euh, déficit de extérieur. donc foofu gis nga am na ajustement structurel am na ndax li ñu li ñu ngi wékku ci lan ci wàññi li état di. jëm ak suñu état di war a di mën a investir benn ñaar wàññi itam li nga xam ne lii ñu ngi jógee ci poosu askan wi ñu koy jënd lii ci jënd war a boobu am maanaa et cetera et wàññi nag li nga xam ne lii moom mooy mooy mooy mooy lii lii askan wi di jënd naka lañ ko mën a defee ci yokkute ay njëg wax aussi électricité hausse de prix teel a wax ne salaire bu yokku fonction publique kenn ko wax ca ca exactement kenn yokk salaire dëgg la yokk nañu salaire privé waaye foofu itam mbir am fa ndax boo toogee ne yow ba tey man bu damay des rek ci li ñu wax ñu ne dëgg la état li mu mënoon du ko mënati waaye secteur privé dina ko mën waaye secteur privé bu nga xam ne ni moom mu indi émergence teg ko électricité bu yokku yaa ngi ko maanaam pour des facteurs toujours facteur intervention bu am solo teg ko itam salaire bu yokku waaw ba pare ndegam yow dina wàññi li ngay jaay li ngay jënd ci économie bi ci naan waaye war nga itam yokk li doon dikk ci yow ndax déficit dafa doon recette mooy dépense nga ne nga da ñu ni ngay doxalee mooy fiscale dafa neex na vingt pour cent en deux ans vingt pour seize pour cent deux mille dix huit mu yóbbu ko ci vingt pour cent deux mille vingt deux mille vingt et un loolu itam day indi wàññeeku ci demande privée xam ne kii nee comme bi léegi ci moom lañ ko yaakaar waaye teg nañ ko ressources yi mu yokk teg ko pression fiscale. te intérêt bu ñu ko di yaa fay bor boo lebee leb leb leb bu fees dell fonds monétaire international bu nga yaakaar bu ñëwee moom liggéeyam mooy li nga xam ne lii amal nga ko bitim réew mooy jiitu li ci des moom nga débrouillé bu ma wax sax ma ne bon feeñal feeñal ñu ñu ñu amee fii waaye day xam fan la ma loolu mënul ne secteur privé boobu ñu teg noonu yëpp ba pare war a yaakaar noonu ñoo gën a avancer. waaw waaw waxu caaxaan. lu tax kon ñu wax ni ñoom ils ont une croissance soutenue bu maintenir six pour cent mos am Sénégal. pourquoi ak croissance boobu croissance boobu ko dund kan moo ko gis croissance boo xam ne mën nga ci mën a yaakaar xëy sax am na wàll boobu ci am. waaye croissance boo xam ne dañ ciy jël mille lu xaw a mat mille ko ci TER ñu ne waaw ndem loolu dépense la yokk na indi na croissance mooy croissance su TER gis nañ njëriñam. ah TER aw dawagul sax gis nañ njëriñam amul croissance boo xam ne dama ne gerte gi jëloon naa ko ci sept cent indi ko ci un million quatre cent mille tonnes. am na un million quatre cent mille tonnes arachide gerte. am na fan la am mën a jugee na ci euh, ceeb boo xam ne yóbbu nañ ko ci autosuffisance alimentaire sax mënatuñu ko tudd waaye amoon na fi yóbbu nañ ko ci autosuffisance alimentaire dugub bi sa tabax fakkaal la benn benn la woon waaye euh, léegi ñaar la ci la nañ ko wékk de boo leen ne anam wala non euh, béykat yi lekk nañ ko lekk nañ ko maanaam ba pare nag génnee na six pour cent sept pour cent ñu war a bàyyi di wax waxu caaxaan te nangu ne askan wi sonn na benn seet lan mooy mën a faj loola dëgg dëgg dëgg te génn ci ay stratégie économique stratégie économique mooy li xam ne li ma war a indi koom ba pare ci gouvernement yoo xam ne ñu nekk ci xar ba indi biir projet dénk ko tubaab yi ak naar yi ñu liggéey ko bu booba loolu dara croissance bi daal bu amee. njëriñu ñeneen lay doon waaye du doon njëriñu seen. donc bu bi sax mooy ba waxee ne amul vision mu ne non comme moo tax ak gisatu sama vision léegi. gis vision mooy gis-gis vision dëgg la ça manque voilà vision moom dañ koy wax ak boo euh, boo jënd jënd nag seen sa vision waaye vision boo nekkee njiitu réew boo nekkee njiitu gouvernement moom gis-gis la gis gis ak gis gis-gis gis-gis bi nag ñun ñu góor am gis-gis ndax gis-gis xel la c'est important. kon yaakaar naa ne xam nga xam nga. xam nga juum foofu. waaw man toujours je crois que niveau d'endettement bi ngeen di dénoncé c'est soutenable. gis nga dégg naa ñu ñu oote oote fànn soxna si jiite tey Fonds monétaire international. nacionalidad de deportiva la semifinal directa al AFED Solidarité Internationale waaye boo leen déglu mu ne waaw ñu ngi am na ñuy wax ñu waaw ci endettement war ñu ko yemale ci soixante dix pour cent du PIB ndax bés ñu mën na dem ba cent pour cent te du wàññi dara mën na dem ba cent cinquante pour cent te du wàññi dara mais dafa ñu dëgg waaye xam nga endettement kan ñuy jàpp ne doxalee mooy li nga jàpp yow wax ko doxal mënatuloo ko war a doxal leneen jiital fay sa endettement te foofu dañu toll teg ajustement structurel bi nga xam ne Fonds monétaire international nangu na ko ba ñu mën a continuer di lebaat ak di am loo xam ne gouvernement dina jël dina ci mën a liggéey stock mooy ajustement structurel mooy ñi leen jiite war a fay li leen ameel bitim réew muy ay dëkk muy ay banque c'est la priorité loolu nag bu amee yow baax na endettement bi matatu ndax économie bu amul dynamisme bu amul dynamisme am na loo xam ne boo ko ko tegee kuy daan di nelaw wax ne dinañ ci jot l'année prochaine loolu amul loolu waxu la xam nañ ko du am du mën a du mënut am lii nga xam ne tegal nañ ko yow boo ootee ci sa biir plan d'émergence nga ne damay wàññi les coûts de facteur maanaam damay wàññi électricité lañ ko wax. Mhm. damay wàññi njëgu électricité foog ñu wàññi les émergence mën a am yaa wax yaa ko bind yaa ko mën te loolu képp koo xam ne jàng nga institut économie bu fekkee ne jàpp nga war a gën a gaawal koom-koom fa ci loolu. boo jëlee loolu teg fële indi électricité bu yokk am na lu tax nekkatoo ci sa stratégie yaa ngi jiital leneen yaa ngi jiital leneen fay bor. loolu euh, mooy ànd ak man non soutenable cet état non soutenable ñu bàyyi di wax dëgg. wax ci wàllu bonne gouvernance parce que yéen loolu moom